jàpp ne ni mën nga leen nax wante Sénégal yi d'habitude waxam bëriwul moom élection rek lay xaar jël kartam te faj gàcceem moom loolu moom sénégalais mën na ko te élection yi incha allah am nañ ci yaakaar parce que sénégalais yi mën nañ xàmmee te mën nañ ràññee moo tax ma ne leen lu Mimi nekkee ci dëkk bi il peut gagner une bataille il peut gagner des batailles mais il ne gagnera pas la guerre ça je peux vous le garantir il ne gagnera pas la guerre

duñ leen wax seen bopp yi rek dañuy nax seen bopp te ragal amu fi te xamante nañu bu baax a baax moo tax Bougane Gueye Dany ba ma ko gisee démb dama am xel bu dal parce que góor pire laa gis jàmbaar pire laa gis lenn rek laa dégg tey te foofu danaa ci interpeller l'administration pénitentiaire parce que man kenn du ma jàngal kaso man su ma doon bind tey téere ci kaso di ngeen xam ne ni agrégé naa ci kaso te bokkuma ci ñu doon tàppale saa yi bu ñu leen doon woo bu yóbbu leen kaso ñuy nekk di tàppale te man ci tàppale boobu am na lu ma ci dul wax parce que amul solo wante ñàkk a ak ñàkk fayra mënul paase nga taxaw tey jàkkaarloo ak sa askan leen dama doon tàppale ci tàppale yu nga nekkoon ñaata sénégalais ci ñàkk seen bakkan ci tàppale bu nga nekkoon ñaata sénégalais ñoo ci tuur seen deret ci tàppale boobu bu nga nekkoon ñaata sénégalais ñoo dugg kaso ñu leen di toroxal di leen torturer yow mii nag yaa ñàkk jom te ku ñàkk jom dinañ la wax da ñàkk jom stratégie bu ngeen fi munti lal mooy jël ci suñu njaboot tëj ci kaso bi wala ngeen jël ci suñu njaboot bëgg a dëpp seen xel yi yenn yenn xam lu leen tax a jóg wante lu am ba am Moi, sénégalais le 17 novembre Inshallah, allah dinañ faj seen parce que 54 des sénégalais ont un Yakar. Et, wax ci duñ ko raay parce que